Mm-hmm. bu fekkee ne 14 yokk na benn muy 15 def ko juróom nag kon nga génne ñetti gàtt juróom yi nag benn gàtt la dalee 15 nag ba 19 du tax nga yokk dara ci sab joxe ci asaka ndax ñeent ya dolli ko waat ci fukk ya juróom du tax dara yokku ja fa isa balaxat ndeem jot nañu fi xisriina ñaar fukk fa fiiha ko nekk na ci arbahu shiyaahin ñeenti gàtt su doonee ñaar fukki gëléem muy yenti juróom su boobaa nga war a joxe benn juróom bu ne ab gàtt ñeenti gàtt ilaa arbaxin ba ci ñeent waxi sina ñaar fukk ba ba dem ci benn kaat kaat yi yokk ci weñ yi tax mu yokk saa saka ba tey ñeenti kaat rek ngay joxe fa isaa balaxat ndem jot nañu xam san juróom waxi sina ñaar fukk ilaa xamsin ba ci juróom wa talaasina ak fanweer fa fiihaa ko nekk na ci ñoom bintu maxaad bintu maxaad wa hiya moom allati mooy ba nga xam ne daxalat tàbbi na fi sanati ci at ma ak saaniyat mi aj ñaareel maanaam wen kaat bu tegalee benn mu wen cinq foofu ngay tàmbalee joxe gëléem nag day joxe gëléem goo xam ne am na at ba dugg ci moom ñaareel ma tey itam muy bu jigéen te ci wen la dalee ci wen cinq ba ba dem ci trente cinq doo weesu gëléem goo xam ne bu jigéen la te am na at ba ci moom ñaareel fa in lam takun dem nekkut la xoo ñeel ko fab nu laboon kon ibnu laboon waxoo moom nag maa mooy ba nga xam ne daxal la dugg na fi sanatu ci at ma ak saalisatu mi aju ñetteel daañ la may nag bu fekkee yoroo bintu maxaab te fekk nga yor ibnu laboon ibnu laboon mooy gëléem gu góor goo xam ne am na ñaari ba dugg ci moom ñetteel moo tax mu ne mooy ku ci moom ñetteel su boobaa boo nangoo joxe ibnu laboon bi du jar ngay wuti bintu maxaab ñu tay la ci sonal sonal ci ngay wuti bintu maxaab booy joxe ibnu laboon mu baax moom day nekk gëléem gu góor goo xam ne am na ñaari at ba dugg ci moom ñetteel fa isa balaxat ndem jot nañu am gëléem yi si tan juróom-benn wa talaasina ak fanweer ilaa xamsin ba juróomu arbaxina ak ñeent fukk fa fiyaa ko nekk na ci ñoom bintu la boon bintu la boon maa ngi la dalee 36 ba ngay dem ci 45 doo weesu bintu la boon bintu na ma ibnu la boon mi nga weesu woon ñoo yemoo li ñu wootee mooy ibnu day góor bintu yu jigéen maanaam ñu bëgg wax ne rek te tàmbalee 36 ba ci 45 ngay joxe gëléem bu jigéen goo xam ne am na ñaari at ba dugg ci mu ñetteel fa isa balaxat ndem jot nañu sittan juróom-benn wa arbaxina ñeent fukk ila sittina ba juróom-benn fukk fa fiiha kon nekk na ci xiqatul xiqa maanaam boo amee 46 ba nga dem 60 ñoo bokk loo ci joxe ngay joxe xiqa wa hiya moom allati mooy ba nga xam ne daxal dugg na ci raabixati ci atum ñeenteel ngay joxe gëléem gu jigéen goo xam ne am na ñetti at bu dugg ci moom ñeenteel ma kooku mooy xiqa fa isa balaxat ndem jot nañu ihda benn wa sittina ak juróom-benn fukk ila xamsin ba juróom wa sabxina juróom-ñaar fukk fa fafiha ko nekk na ci jazaatun jazaa wa hiya moom allati mooy ba nga xam ne daxalat dugg na fil xaamisati ci atum juróomeel maanaam la dalee soixante et un ba ngay dem ci soixante quinze ñoo bokk loo ci joxe mooy jazaa jazaa mooy gëléem gu jigéen koo xam ne am na ñeenti at ba dugg ci atum juróomeelam fa isa balaxat ndem jot nañu sittan juróom benn wa sab xina juróom-ñaar fukk ilaa tis yi na ba juróom-ñeen fukk fafiha ko nekk na ci bintaa la ñaari bintu la an la dalee soixante-seize ba ma dem ci quatre-vingt-dix rek doo weesu joxe ñaari bunt la boon fekk xamoon nga benn bunt la ba noppi ñaar nga cee joxe nag fa isa balaxat ndem jot nañu ihda benn watti sina juróom ñeen fukk ila xishrina ba ñaar fukk wa ak téeméer fa fiiha kon nekk na ci xiqataani ñaari xiqa maanaam la dalee quatre-vingt-onze ba ba nga ñëw ci cent we doo weesu ñaari xiqa man nga ne sax ba nga ñëw ci cent vingt ba nga ñëw ci cent vingt neuf sax ñaari xiqa yi ndax lee mu ca teg ne fa isa saada ndem dool ndem ëpp nañu xalaa daalika ci loolu taxa yara kon soppiku alwaajibu aji war ja dal cee teg ne fa fii kulli arbaxina nekk na ci bépp ñeen fukk bintu la boon bintu la boon wa xam si xamsina nekk na ci bépp juróom fukk xiqatun xiqa loolu da cee jublu cent wey bu de bu tegalee fukk muy cent trente waaw bu doonee cent trente nañu doon tàmbali loolu waaye jàppal ne cent wey ba ci cent vingt neuf doo weesu ñaari xiqa yi cent vingt neuf nag bu tegalee benn muy cent trente nag mu ba ci cent quarante ba na ko yàlla bari su jur nag foofu la ñuy def li mu wax mooy dañuy seet sa jur par ay quarante wala par ay cinquante maanaam bu lépp mënee nekk ay ñeent fukk kon ñu def lépp par ay ñeent fukk ñeent fukk bu ne nga joxe ci bintu la bon bu lépp mënee nekk ay juróom fukk ñu def lépp par ay juróom fukk su ko defee juróom fukk nga joxe ci xiqa su jaxasoo itam lee doon ay ñeent fukk lee doon juróom fukk ñeent fukk bu ne nga joxe ci bintu la bon juróom fukk bu nga joxe ci xiqa léegi 130 yooyu ngay njëkk a jot boo ko dee seet dafa am ñaari 40 ak benn 50 te xam nga téeméer boo ci génnee ñaari 40 juróom-ñetti fukk lay doon des ñaar fukk nga boole ko 30 30 bu ci topp mu daal nekk 50 kon nga daal di joxe benn xiqa ak ñaari bunt la woon mu yooyu rek nag. wa amal baqarum daal naye fa fi kulli salaasina nekk na bépp fanweer min ci ñoom tabihun aji topp yaayam jasaxun mooy jasaxu bu góor aw jasaxat wala jasaxu bu jigéen. wax woo moom ba nga xam ne aw faa matal na sana tey ni ñaari nag moom li fekk amoo ci fanweer asaka waru la bu amee fanweer nag asaka war la nga war a joxe benn nag boo xam ne am na ñaari at waaw ñaari yi nag bu la neexee naw di góor bu la neexee muy jigéen wa fii arba'in nekk na ci ñeent fukk musin na musin na moom laatu jàpp illaa am muy jigéen wax wete moom al mu wax fiyatu mooy aju matal salaasa sini na ñetti at waaw nee li dalee 30 ba ci 39 moom doo soppi tabion bi nga daan joxe waaye nag 39 bu tegalee benn muy 40 foofu ngay soppee tàmbalee joxe musin na musin na nag moom mooy naw jigéen woo xam ne mat na ñetti at am na ñetti at daal te tam moom doo sañu joxe bu góor ci yooyu jamono jigéen rek ngay joxe su ma fi siti na su ma fi siti na topp nekk na juróom benn fukk tabion xaani ñaari tabion maanaam la dalee ba bëgg ñëw ci cinquante neuf doo soppi musinna bi nga daa joxe cinquante neuf bu tegalee benn muy sant nag foofu lañu jàpp ne am nga yaari fanweer fanweer bu ne nga joxe ci tabiyoom su ma fii kulli salaasina topp nekk na ci bépp fanweer tabiyoom tabiyoom wa fii kulli arbaxina nekk na ci bépp ñeen fukk musinnatun musinna boo xasee matalee sant nag moom sa génn daal yomb dañ daal di seet sa jur ci nay par par trent ak par quarante waaw saa yu ñu ko mënee def par ay 40 40 ba na nga joxe ca machine ma suñ ko mënee def par ay 30 30 ba nga joxe ca su jaxasoo itam lu nekk ñu génn ci la ca war ni boo amee 70 kon day nekk benn 30 ak benn 40 30 bi nga joxe ca tabiyon 40 bi nga joxe ca machine ma bu doonee 80 muy ñaari 40 kon ñaari 40 yi ba na nga joxe ca machine ma mu yooyu rek nag ilaa xashrina ba ñaar fukk wa mi atin ak téeméer fa yu xayaru kon def na tànnloo ak saahi aji laaj asaka ji fi axdi salaasi musinnaatin ci jàpp ñetti musinna aw arbaxati arbihatin wala ñeenti tabion nee na soo amee sanwe ki laaj asaka mooy seet bu ko neexee mu seet sa jur gi par ay 40 su boobaa ñetti 40 la mu jël ci yow ñetti musinna su ko neexee mu seet ko par ay 30 su ko defee muy ñeenti 30 mu daal jël ci yow ñeenti tabion xam ne xanamu daal gàtt yi fa fii arbaañ nekk na ci ñeent fukk min xaa ci ñoom chaatun benn gàtt jasaxun jasaxu bu góor lay doon aw jasaxatun wala jasax bu jigéen mu nag da andi ci xar awil ma asi ci béy xar ak moom nee na ñooye moo koo ci xam ne amoo ci ñeent fukk rek asaka waru la boo ci amee ñeent fukk nag asaka war la nga war a génn benn bi mën naa doon xar wala mu doon béy mhm. waxoo moom nag maa mooy ba nga xam ne aw faa matal na sanatan at waaw nee na jasan mooy boo xam ne at kon daal boo amee ñun fukki gàtt ngay génne benn gàtt bu am at muy asakaam wa fii mi ati nekk na ci téeméer wa ihdaak benn waxi si naan ñaar fukk shaataani ñaari gàtt man la dalee 40 ba ma ngay dem 120 doo weesu benn bi waaw la dalee ñeen fukk ba ba téeméer ñaar fukk doo weesu benn bi téeméer ñaar fukk na bu tegalee benn muy 121 nag waaw foofu ngay tàmbalee joxe ñaari gàtt wa fii mi ati nekk na ci ñaari téeméer wa shaatin ak benn gàtt talaatu siyaahi ñetti gàtt maanaam deux cent kese du tax nga weesu ñaari gàtt waaye bu doonee deux cent un maanaam ñaar téeméer tegal benn foofu ngay soppee tàmbalee joxe ñetti gàtt boo amee deux cent un nag ba ma ngay dem ci trois cent quatre-vingt-dix-neuf mu ñeent téeméer yu benn doo weesu ñetti gàtt yi nga daa joxe mu ñeent téeméer yu manqué benn su ma tee ñeent téeméer nag nga daal joxe ñeenti gàtt mooy wa fii arbañ mi at yi nekk na ci ñeenti téeméer arbaxu siyaahi ñeenti gàtt su boobaa am day daal yomb dañuy topp rek par téeméer yi téeméer bu ne rek nga joxe gàtt yi toll noonu boo amee juróomi téeméer juróomi gàtt boo amee fukki téeméer muy junni nga joxe fukki gàtt mooy suma fii kulli mi atin topp nag topp nekk na ci bépp téeméer chaat nan gàtt tambiihul li ak yeete la laatu laatu xasu deful jàpp karaa imul amwaali tànnee fi alal ya kal ak kóolati ni kii aji bëgg jóg lekk wal faxli ak kóoy la wa daati labañ ak borom soow ma wala chiraaruha du caageenu seeni kees mooy yoo ci gën a bon kas saxlati ni ki burtu wa tey si akub teef wal xajwa si ak aji màggat wal xawraay ak aji pat waaw ah, nee kii laaj asaka suñu laa forcé ne la damay tànn gën a baax ndiki mu fekk boo xam ne daa bëgg lekk lool nga xam ne ku ko toppatoo mu baax wala kuy la nga xam ne mooy ànd yu jigéen ya ba ba gi yokk sakkan baa ba bariw soow mu ne daa koy jël loolu tànneef la waaye doo sañ a forcé ne ko daal lay jox yemaay yi mel ni nga bëgg koo jox mburtu nga xam ne aggul ci at nañ la waxoon boo ko bëgg a jox te aggul ci at nañ at nañ la waxoon rek doo ko sañ bu màggat ba noppi màggat nga tax ko yemaay it du ko du baax ba pat mbaam am benn manqué manqué du ko taa baax kon nañu seet bu digg doomu nga xam ne doo gaañu ñu ñu war a moom asaka ji tam duñ gaa duñ gaañu boo seetlee sa bopp seet la gën a baax nga joxe ko nag comme sa tuyaa ba day gën a bari rek faslun ab dog la fii zakaatil xarse ci asakay mbay waxoo moom mbay almuqtaatu mooy la ñuy dunde almuttaxasu la di lu ñu mën a jàpp lil xayshi ngir dunde xaaliban ci la gën a bari nee na buñ ne asakay mbay mooy day fekk la bay muy loo xam ne mën nga koo denc di ko dunde te du yàqu bu dee loo xam lu ci ëpp ko koo denc di ko dunde ba buñ ko dencee rek mu daal di yàqu kon asaka du ca war moo tax bu dee fiq maali dañoo boole yaar ñaar fukki yëf yoo xam ne bu ci nekk seet nañ ne may na koo denc di ko dunde wax ne asaka war na ca nag lay bëgg a tudd benn benn yi fataji bu dana war azakaatu asaka fil ci bele bele moom ko am nisaab ji asaka war des na ko denc di ko dunde wa shaangiri ak lorch moom mi des na ko denc di ko dunde wal ursi ak ceeb ba tey noonu wa naxwiha ak lu mel ne ñoom ba ci suuna ak saañu mi nga miin wa fil xataan yi ak ci géeri sëb yi sëb dafa bari xeet waaye asaka dina ci waat ndax daañu leen denc leen dunde kal xadas yi nekki xadas wal basilati ak basila wal fóoli di dunde kon des na ci génne asaka ba tey wa fi ak ci tàndarma wa zabibi ak reseñ wa zaytooni ak oliw tàndarma ak reseñ ak oliw yooyu yëpp daañu ci génne asaka walaata ji bu du war fil xasa bi ci gattaxu suukar gattaxu suukar moom asaka waru ci boo ko bayee itam wala bu ak xeeti lujum yi lépp lu xeeti lujum asaka waru ca wa ak figg figg daa bokk ci xeeti firi yi figg ñu bari xam nañ ko wala fawaaki yi ak furwi yi karrumaan ni ki grenade grenade boobu xeet doom la daa wan xeeti doom yi mel ne pomme ak orange ak mandarine yëpp asaka waru ci wan nisaabul xarsi asakay mbay xam satu aw suqin mooy juróomi wasq waxiye ñoom alfu ritlin mooy junni ritlu wa sittu mi at ritlin ak juróom benn téeméeri ritlu bil baxdaad yi ci bopp baxdaat te kulu ritlin bépp ritlu mi atu dirhamin téeméer dërëm la wa thamaniyatun ak juróom-ñett wa ishruuna ak ñaar fukk wa ishruuna ak ñaar fukk dirhaman ci dërëm bi ci dërëm ba almakki bi ko ju màkk dalaa bëgg xamal asakay mbay xamal li woo xam dana naqaree xam ci waaye daañu la wax li nga mën a xam rek bu soobee yàlla moom dalaa la juróom boo ko amee la nga bay bu fekkee mat na ko asaka war ci mu ne bu fekkoon ne ngaa bokk ci waa Baxdaad xam ritlu ba nekk foofa kon boo ci amee junni ak juróom-benn téeméer loolu kon mooy doon nisaab su boobaa benn ritlu bu ne dana diise benn dërëm dana diise ne benn bu ne dana diise ne dërëm ak ñaar ko juróom-ñett maanaam benn ritlu bu ne war naa diise ci puwaane 128 ci dërëm yi nga xam ne mooy dërëm yoo ma kay waxoo moom benn dërëmu màkk xam soo juróom fukk la wa xumb saa xabatin ak ñaari xumb si aw fepp mën na changé ci pepp lors al mutawassiti may aju digg doomu nee na benn dërëmu màkk nag boo xamul nu mu diise bu fekkee xàmmee nga pepp lors moo xam ne dafa digg doomu rek tuuti bopp réew nga wàññi ci juróom fukki pepp jëlaat benn fepp xar ko juróomi xar jël yaari kese ya jël yaari xar ya kese boo juróom fukki ya nga wàññi woon te bañ caa boole yett xar ya ca loolu lay wax man loolu xam ne la waaye wax ngaa xam ne rek daal kon benn wes wesxu rek moo juróom benn fukki saa te saa des na ko tollalee ñaari kilo am ñu koy ëppale am ñu koy yéesale waaye soo jàppee saax ñaari kilo kon benn wesxu boo nee juróom benn fukki saa la suba waa demee kon bërigoog ñaar fukki kilo la loolu na boo ko defee ba mu juróom yoon mu doon juróom benn bërigo kon mën ngaa jàpp ne asakay mbay moom mooy juróom-benn bëri ko gën ngaa néew du ko yëpp waaye moom boo ko am la nga bay daal bu fekkee mat na ko sooy boo génne ci asaka wa inama to tabaru naka def na xalam al aw suqu wasqu ya baada wadhima ci gannaaw sippi la nga xam ne fiiha nekk na ci ñoom minal xachafi ci tàndal ma jowow mooy jugooy waru toobaati ak i tooy tooy mu ne sax bu fekkee dafa tooy mbaa mu am gooy dañu nattale ba xam boo génne woon mboolem li teg fële tooyaay bi tam ñu seet ba xam bu woowoon njëkk waaye du xam nga tooyaay day yomb a diis duñu seet rek tooyaay bi mat juróom-benn bari ko dañuy seet bu fekkoon ne wow na dana ko matam déet waaye ah, loolu duñ ko seetloo nag te mat ko asuka war ca wala mu xoraju la ñu génne min zakaatil xaas ci asakay mbay alxushru mooy fukkeel ba fii maa ci la nga xam ne suq ya suuxateef na ko min xëyri ma njulul coono kama ay samaay ni ki ndoxum wa nisful xushri te mooy genn wàllu fukkeel ba fii maa la nga xam ne suqiya suxateef na ko bi aalatin ci jumtukaay kat dawaali bi ni ki ay machine waaw nee na dañuy seet li waroon suuxate mbay mi bu fekkee sonnoo ji nga xam ne asamaan mooy taw rek ngay bay mbaa dex gi moo fay romb rek ngay bay te doo ci fay dara hmm. mbaa machine ay suuxat waaye doo ci fay dara waaw su boobaa kon la nga bay boo ko defee fukki xaaj benn xaaj bi rek ngay joxe asaka waaw ah, boo def fukk yoo def rek benn ma ngay joxe te juróom-ñeenti bu fekkee da ngaa sonn ci suuxat bi ndax sa loxo nga ko doon suuxate mbaa machine ba ko suuxat da koy fay boole ci waaw ah, su boobaa nag sa asaka lay gën a néew mooy boo ko defee fukki xaaj benn ba da nga koy xaajaat ci digg ba joxe nag benn xaaj ba tey juróom-ñeenti ak genn wàll faslu li ab dog la fi bayaani mën ci leeral ka nga xam ne tusrafu def na jox la ñeel ko azakaatu asaka day wax ñi nga xam ne boo génnee asaka ñoom nga koy jox tudd faamu def na ko jiñ waaw mooy def na ko jox li ahadil asnaaf ñel kenn ci xeet yi ak tamaaniyat yi juróom-ñett almadkoor yi na ñari ñuñ tudd fi xawlihi taala ci waxi borom bi mu ne innama sadaqaatu naka asaka ya lil fuqaraa ñeel na way ñàkk ña wal masaakin yi ak miskin ya al ayata toppal laaya ja waaw nee na ñi war jox asaka moom suñu borom ko tudd ci jenn laaya ñu tegaloo tàmbalee innama sadaqaatu lil fuqaraa yi banam daanoo ñooy ne moom la wax benn benn nga dégg al awalu aji jëkk ji al faqiru mooy aji ñàkk waxoo moom allazi mooy ka nga xam ne ko dana moom achay a dara al yasira lay aji néew allazi la nga xam ne laa yëkk fii du ko doy li xay fii ñeel ab dundam faqir moom bari na faqir mooy koo xam ne amul amul lu ko doy dund ci at mi te amul mécc mum ko fàggoo amul tam koo ko warloo ne ko maa la koy defal te mën ko boole ja waaye boo amee métier moo xam ci lay sukkandiku te daana dox ba mën a ca am dundam kooku loruwut boo amee koo ko warlool ba tey loolu baax na te ba tey kooku loruwut waaye nag koo xam ne wa inkaana donte nekkoon na yem ko di moom nisaaban nisaab laa yàqu mu loolu du taxaw bi ci moom wala bi xiyaalihi du caageenu ci njabootam fa inna lahu naka ñeel na ko añ yàqusa mu jàpp azakaata asaka waaw nee na bu fekkoon ne moom ci boppam am na lu mat nisaab waaye duñu ko ci at mi ndax daa bari njaboot su boobaa kon nee na du tee ñu war koo jox asaka bu joxe mën na koo jox lu am lam bari bari ndegam duñu ko rek moom su boobaa manees na jox bu teen asaka war ko moom loolee mu warte asaka war ci dana ci génne asaka su ma tee nisaab noonu ñu wax te du tee ñu mën ko jox asaka nag boole ci attaani ñaareel bi al miskiin mooy am miskiin waxu moom ahwaju moo gën a aajowoo minal faqiri ci aji ñàkk wax moom allazi mooy ka nga xam ne laa shay dara loxo di ko ñeel jumlatan ci bëbëstal wala jumlatan ci gàttal waaw miskin moom mooy koo xam ne amul dara dara mel ni amul sax lu ma tey reer tey wala añub tey waaye saratu def na sart fii ci moom wa fil faqiri ak ci faqir al islaamu am njulit wal xorriyatu ak ngor nee na faqir mbaa miskin bala nga ci jox kenn da ngay teeylu ba xam ab julit la am déet bu doonee lu bokk te julit ni ki bi yëfar bu ko jox nga seetlu ba xam gor la am jaam bu fekkee ni jaam la dañuy jàpp ne ab sangam moo ko gàddul ay mbiram kon kooku warta loru bu dee gor lañ koy jox waaye bu dee léegi gor ak jaam amatut ak taalis ñetteel bi alxaamilu mooy aji liggéey xale zakaati ci asaka ja tassaax yi ni ki aji laaj ci asaka waaye in kaana ak doonte nekkoon na ganiyan di aji woomal maanaam ki liggéey ci asaka ji ni ki ki wër di ko laaji mbaam di ko dajale di ko denc di ko toppatoo kooku waras na ko caa jox moom nag lu mu bari la bari la ñu war ko caa jox ndax li muy def ab liggéey la ci boo xam ne mooy tax mu ñoŋ bañ mën koo jot li ñu ko war a moom moom li koy jox rek la ci moom ak bari la du tee ñu jox ko ko bokkut ak nag bi liggéeyal sëñ bi ca tool ba moom liggéey ko mu liggéey ci tool bi taxul ñu koy jox asaka mu gisee ne moom loroon na ndax de yàlla la nekkal te amul leneen lu mu wéeru mën nañ ko jox ngir loolu waaye duñ ko jox ni ngir moo doon liggéey ci moo doon ci alal ji asaka ji génn rek arraabihu ñeenteel bi almu allafatu mooy ñi ñu miinal xuluubuhum seeni xol waxum ñoom xawmun aw nit lañ kuffaaru ñu dee weddi yàlla yon tawa ñun jëf na leen jox tarxiiban ngir xemem loo fil islaam ci lislaam naam bi alxuraan ne wal mu wallafati xuluubuhum dañ cee woote daa ñu wax ne mooy ñi nga xam ne tuubuñu ñu mel ne ku leen di campagne di leen jox asaka ji ndax bëgguñ ñëw ci lislaam bu dee loolu wax ne léegi dañ na lislaam dëgër na dëgër goo xam ne di su joxati kenn alal li asaka ngir bëgg mu ñëw firi ci des nag mooy kii door a dugg ci lislaam ñu bëgg nag mu dëgër ci moo tax ñu koy jox loolu moom ba tey jaadu na bu baax ndax léeg sax am ku ñëw tuub ay mbokkam wàcc ko gedd ko ba daal di koy sàggane su boobaa nag kon ñu jox ko asaka moom lu baax la ndax mu gën a dëgër ca la mu duggoon alxaamisu juróomeel bi ar riqaabu mooy jaam ya waxuwa moom ar raqiixu moo ab jaam al muminu bi aji gëm yàlla yushtara def na ko jënd wa yow taqute dee fi ko goreel wa wala uxoo te kilifteefam lil muslimina ñeel jullit ñëpp waaw ah, wa fi riqaa bi jëm wax ci laay wax maanaam jamono yi jaam amee mën ngaa fekk jaam boo xam ne jullit la nga jënd ko ci alali asaka ji mu soppi ku gor su boobaa nag doo moom kilifteef ga kilifteef mu baytimaal ko moom maanaam mel ni tey bu faatu woon tey te amul ko war doon alalam lay dem baytimaal ndax alal ji ko jëndee moomoo ko asaka rek lu muy alal yàlla waaye doo jël alal ji jox ko jaam bi nag ndax jaam bi nañ la moom ab sangam moo ko gàddul ay mbiram kon loolu ci googu wet danga koy jënd kay ci alal yi asaka ji moom mu gore assaadi su juróom-benneel bi alxaari mu mooy aji leb mooy ko amee bor waxuwa moom man mooy ko nga xam ne istadaana leb na fi nga xëy di safayin ci lu desee di ci lu topp bakkanam maanaam wala fasaadin du caaginu yàq wala yejut ci du am wafaan ak matale mhm. ba tey nee koo xam ne wal xaari wal xaari mii na jalaay joox ci lay ñëw koo xam daa amee bor te ba muy leb daa leboon ci farata ji wér di ki dund boppam mbaa dundum njabootam loo xam ne mënta ñàkk waaye lébu doon rek ci topp bakkanam di yàq ak wax ne su ma lewee daañu ma jox asaka loolu rek bu dee loolu taxoon kenn du ko jox baa bu ñu gis ne tuub na ko wér du ko defati kon bu fekkee loolaa taxoon mu lew mu lew itam dinañ jox ko ndeg nga xam ne tuub na ko waaye koo xam ne amee na bor yu mel nii te moom amul lu mu ko fayee su na ko jox asaka aw yakkoon wala yu nekk maaxoo ànd ak moom maalul alal bi isaa yi day ni xiw ci tolloog borom daa bëgg wax ne bu fekk yor nga alal joo xam ne wurus ak xaalis la asaka war na ca waaye amee nga bor boo xam ne boru farata la boo war a fay te boo ko ci fayee benn day jeex mbaa la cee def du mat nisaab kon su boobaa asaka wàcc na la lu may danga amee yeneen yoo xam ne asaka waru ca te mën nga caa fay bor bi ni ko amee ngay kër walay fas walay oto wala leneen yoo xam ne mën nga caa fay bor bi su boobaa kon li nga war ci waru sa xaalis asaka dana ci war moom asaabi juróom-ñaareel bi sabilullahi mooy yoonu yàlla wala muraad lañu namu bi ci moom al jihaadu mooy jihaad doonal xaj ci lu dul aj nee na wa fii sabilillahi ji laay ji wax ne des na joxe asaka jihaad rek lañ ci jublu mooy xeex yéefar yi ngir yëkkati lislaam am ñu ko yaatal léegi nag bu boole ci daara yi boole ci jàkka yi mel noonu waaye wax ji gën mooy yooyu yëpp bokkuñu ci bañ ko ci joxe moo gën a wóor waa Màkka yi ba léegi loolu lañuy ñuy ubbee maanaam jihaad rek waaye boolewuñ ci jàkkaak xeet yooyu le gis hmm, ko jox kuy aji maanaam kay jàngale alxuraan nag mën nañ ko caa jox bu fekkee ne daal loru moom ci boppam ngir lu mu yore boppam ak njabootam kooku mën nañ koy jox ngir loola nga xam ne kon nekkam nekk faqiir mbaa nekkam nekk miskin ci lañ am nga lañ ko joxe waaye joxuñu ko ngir daara ja wala ngir hmm, jàkka ja fayu du fa def na jiñ lil xaas yi ñal aji xare ji kaana moo xam nekk na xaniyan di aji woomal aw faqir wala muy aji ñàkk mu ne sadaxati ci asaka ja maa loo xam ne yun fiqhu dana ko dundale fii xas wi ci xareem ba waaw nee na kii dem ci xare ji ci yoonu yàlla moo xam bari le moo xam ñëw le na mees na ko jox ci alali asaka ji loo xam ne dana ko mën yore ngir moom jëm muy jihaar ji attaamin juróom-ñetteel bi ibnu sabili moo di ab doxandeem waxoo moom al mooy aji tukki ja al bu jëdi ab doxandeem yontaa def na ko jox bi salaasa ji shuróot ci ñetti sart boo bini sabili jëlaaye ji wax moom lay wax noonu ab boo xam daa takk ci béréb mënta jàllati mënees na jox asaka ci kaw sart yi muy bëgg a wax an laa yàkk war na mu bañ a nekk safaruhu tukkeem ba fii maasiyatin ci mooy mooy tukki ba muy tukki bu mu doon tukki mooy yàlla lu may dafa tuub baa ñu ragal ne ku ko joxut mu faatu bu xasee tuub baa ñu ragal ne ku ko joxut mu faatu tey bañ jox ko waaye bu loolu moom dagam tukki bi tukki mooy dong la buñ ko jox waan yekkoon ak mu nekk faqiran di aji ñàkk bil mawdihi ci béréb ba ëllësi ba nga xam ne xoo moom bii nekk na ca waaye in kaana ak doonte nekkoon na ganiyan di aji woomal bi baladihi cim réewam na itam bu xasee ñàkk ci béréb boobee mu nekk rek béréb boobee mu tag rek baax na bante woomal na fa mu dëkk waaye gisul ko ca mën a jot li ndax amul koo lebal ba mu ñibbi foofu fay ko te mënu caa jot ci la mu am kon loolu moog bañ am dara yam su boobaa kon daañu ko jox moom moo tax ma tekki wa an laa yejida ak bañ am mën koo xam ne yu salli foofu ko lebal bu fekkee ne fa mu dëkk woomal na fa te am na ko mën a lebal ba mu dem fay ko kooku moom looratut kenn ko jox waaye nag yoru ko te amu ko fa mu bàyyi koo mbaa am na ko fa waaye gisul ko mën a lebal ba mu dem ba foofu waaw kooku moom loru na daañu ko jox wa yu saddaqu def na ko dëggalal init daxandeem woote na ne annahu moom ibnu sabilin ab doxandeem la waaw nee na bu fekkee dana meen ab doxandeem laa ku yóbbu jàpp ni wax na dëgg jox ko asaka ndax ndegam dëgg fa kon mënu su koo xam ba xam li wax dëgg la am nit waaw suba kon ko yóbbu jàpp mu wax faslu lay beneen dog la yajoosu dana dagan ixraaju dahabi génne wurus xanil warixi walis xaalis wal warixi ak génne xaalis xanil dahabi walis wurus nee na bu la neexee xaalis bi nga xam ne ci la asaka war a génn nga bàyyi ko te seet la tolloog moom ci wurus nga génne ko ci wurus wala wurus yi nga xam ne ci la asaka ja war a génn nga bañ cee génne dara te seet la tollook moom ci xaalis nga génne ko ci xaalis mel ne tey nga yoroon ñaar téeméer dërëm buñ ne jur juróomi dërëm moo ci war nga bàyyi ko te génn genn wàllu dinaar wala nga yoroon ñaar fukki dinaar ñu ne genn wàllu dinaar moo ca war yow nga bàyyi ko ne yow tafar génn juróomi dërëm ci nekk rek mënees na ko am. wa tajibu dana war niyatu zakaati yéene asaka ja asaka ja boo génn nga ko yéene yéene ji nag mooy ku la bettu ne la waaw li nga joxe nag nga mën ne asaka la loolu bëri ci la amee rek loolu doy na. wa tafriqatuha akuk tasaareem bil mawdihi ci béréb ba ëllësi ba nga xam ni wajabat waree na fii ci moom asaka dañ koy boo ko see génne dañ koy joxe ci béréb ba nga xam ne fa la ñu liggéeyee alal ja ko génne alal jom génne fañ ko liggéey rek foofu lañ koy génne foofu lañ koy joxe te nag la wër ci doxu wàññi maanaam soixante-douze kilomètres li la wër moom foo ko fi joxe mu baax waaw walaay jur su du dagan naqluha ak toxalam anhu jële ci béréb boobee illaa an yàkkoon dara bu dafa nekk mawduhun ab béréb aaxaru beneen bihi boobu nekk na ci fuqaraa way ñàkk ñu gën tar i'daaman ci ñàkk fa innahu naka moom yoxtaa def na joxe min ci asaka ja fii mawdihil ci béréb bu war ga wayun xalutu toxal ak suruha gën jaa bareem lil ahdami jëm ci gën a ni nag doo sañ a toxale asaka ji fii yóbbu feneen lu may te nga koy jëme ñoo ko ñoo ci gën a loru ñoo ci gën a ñàkk su boobaa itam da ngay joxe lenn la foofa la ëpp na nga yóbbu ko ci fa gën a ñàkk mel ne bu fekkee dangay ngay liggéeyee Europe di joxe asaka am am ñu ko yelloo foofu ca ñu ne Italie wala France ngay seet lenn lenn la nga joxe ko foofa li ci ëpp na nga yónni si ko fii ci réew mi da ngaa jàpp ne ñi ci réew mi ñoo gën a loru ña nekk foofa faslu li beneen dog la ida xasala ndem ber na zakaata asaka ja indal xawli fa matuk at ma fadda xatte mu kon ko warlu na su at matee nga génne sa di xaar koo ko jox te gisagoo ko mu far sànku mel ni mu lakk mbaa ñu sàcc ko su boobaa itam yow sa jaan wàcc na wa in xasala xaa ndem ber na ko baxdal xawli ci gannaaw at ma damina mu gàddu ko nee na bu fekkee danga koy yéex a génne at mi jàll na ba teg cee fan nga bar koo génne nag génne ko ci baat may door a mat kon gannaaw ba bu sànkoo dañuy jàpp ne dangaa sàggan su boobaa kon nga war a fay asaka jooje wa in xasalaha ndéem ber na ko su ma daaxa topp sànku asluha cosaanam xabla xaa ci njëkk ak génneem it fa innahu naka moom yedd fa mu xaa dana ko jiñ mooy dana ko jox li arbaabiha ñeel ay woroomam nee na soo génneen asaka ji teg fee ne lee mooy sama asaka di xaar nag kenn ñoo nga jox ko ko laata kenn ñëw moom ci boppam moom kenn laalu ko waaye la nga moomal sa bopp lañ sàcc mbaam lakk waaw mel ne nga def ko jaag fukki mètre nga ko def juróom-ñeenti yaa ko moom benn mètre bi moom nga door fee di xaar nag ki nga koy jox ñëw nga jox ko ci coobare yàlla nag da mhm, nga bëree noonu asaka ji ci coobare yàlla kenn ñëw rek bàyyi fa asaka ja tonn yow la nga moomoon lépp daal dem ne bi ko defee fukki mètre rek def nga ab diggante bu wane ne benn mètre bi mooy asaka juróom-ñeenti mètre yi moom nga moom ki doon sàcc moom daal di ki bàyyi fa asaka ja tonn yow li nga moom lépp du hmm, tax nga wax ne ndegam na naa téye asaka ji déedéet da ngay joxe asaka ji rek moom ba tey muy sa asaka boo loroon nag mën na laa jox maanaam kuy joxaat asaka mën na laa joxaat na yow waaye doo mën a téye sa asaka ngir ni laa nañ ko wa man maata ku faatu xabla ixiraaji sakaari njëkk génne asaka aw saa wala mu dénkaani bi xaa moom fay naxaa naka moom tuuxasu def na ko jàppe moom la simaalihi ci capital alalam maanaam ci léppi alalam daal waaw nee koo xam ne dafa faatu waaye ba mu faat boo fekk na